بجاي أبدل من لله قد جاء ربي بما يزرع الأزان قد جاء بجاي أبدل من لله قد جاء حمدي لرب الكريم الله سلام وزاريا يوم نورا زاديا ملا محمد صلى الله في أباد عليه في يسبي كل بيت الله عدو الله الأمان واجب لجملة الخلق ما يختار من برات ناجيت جل ومن وكرماني تكريم غد وكل من لغى البريئة رمان قبل الجان في الخلق رحمة من يغني عني سر من قرآن قرأ المصطفى عن كل ما سدات ودغ من الغاية من جادهم بدا يا مالك ملكي يا من جعل غوادر ارحم جميع الورى يا غادي الهدى الورى يا غادي الردى يا مالك الملك يا من جل الغوادر ارحم جميع الورى يا غادي هادي الردى ما تمعنا القلب من درار بجاه عبد من بالله رجاء ما تمعنا القلب من درار بجاه liman lillahi xaala sëñ bi mën nañoo xam tur bi. waaw kuy de sëñ Assane Ngaye. Assane Mbaye. Mbaye waaw. tey nga nekk bu Tarqiyyah waaw mën nañu wax loolu la parce que noonu nga solo nga ñëw fii si appel laay lan moo waral teewaay bi fii. ah ñëw rek pour feddali kóllëre gi am suñu diggante ak laay rek xam moom maanaam lépp lépp lépp rek suñu suñu borom la. waaw ñëwoon fi rek pour féetali kóllëre gi ñëwoon fii si bis bi pour màggal kook ñoom ànd kook ñoom waaw ba fa mu yem rek incha allah rabbi. tey nan ngay gisee appel bi parce que appel bi euh, comme ni ñu leen gisee gis nañ si ay Baye Fall gis nañ si ay leneen ak leneen loolu di wane dialogue euh, bi nga xam ne confrères yi ñu ngi koy commencé am xiiroo be ngaayoo bi affaire yooyu mu ngi commencé wàññeeku bu baax a baax a baax. waaw loolu moom dëgg la ndax boo xoolee maanaam alentour bi yëpp. da ngay gis maanaam façon col bi da ngay gis bien vrai que maanaam weex bee fëpp de mais da ngay gis Baye Fall fii gis murid yi gis bu yi génnee nii maanaam nga gis ñeneen ñoo xam ne sax maanaam day leen ñii yeneen tarixa lan bokk mais teewul dañoo ñëw pour taxaw bis bi maam moo da lay wan ne maanaam Sénégal benn bopp la li nit ñi di wax li maam borom Touba def moom benn moom benn la fi keneen du ko fi def mais tamit fànn yëpp daal di ku si nekk rek maam si yàlla lañ jëm waaw ñoo ñëwoon tamit ñun ñii yëpp xam ni tamit lépp benn la daal ñu ñëw ànd ak ànd ànd koog ñoom ba fi mu yem daal waaw moom dëgg fi yàlla bëgg nañ di ko teewee ay ati at di ñëw comme nii di ko teew ak ñoom ndax boo demee Magal Touba tamit la même chose ngay gis da nga fay gis maam tarixa yëpp ñëw képp ku xewlal Sénégal day mel ni benn bopp la waaw ñun tamit ñun ñi nga xam ay tutànk lan loolu lay jéem a dox doxal di ko dëggal maanaam ba suñuy raq ak suñuy bu ñu ñëwee bëgg a bëgg topp loolu noonu maanaam. lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom à chaque fois dañuy jéem a xaajale Euh, di di euh, ber Laayeen yi di ber Murid wala ñu ber euh, ñu di Tijaan yi. ñoo loolu moom ñu koy def ku nekk danoo nekk ñoo xam ne xamuñu rek ndax maanaam boo nee islam ba pare bëgg dugg si biir islam di fa di fa xaajale wala nga am ñoo xam ne dañ leen tuddee ñi wala leneen ak leneen rek maanaam yow da ngaa xamut ndax bu ne sang mi gën mooy Seydina Mohamed ñu ñëpp moom lañ yaakaar waaw ku si nekk am ngay branchement nag yow topp waaw mais teewul tamit ñu ñëpp luñ gëm mooy. maanaam ay ay jullit waaw da yaakaar naa ne maanaam ku si xaajale ku nekk da ngaa xamul waaw lool loolu côté boobu moom daal loolu la laa si wax dañu ñu xam ne tamit maanaam xaajaloo xajul Sénégal gii nii waaw nax parce que maa ngi njëkkee xaajaloo wuñu boo doon xool maanaam ñoom ñëpp ay mbokk lan day kon ñu ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw bu ñu ñëw di jéem a xëcc loo xam ne amut wala leen nag leneen waaw loolu maa ngi si woo tamit mbokk taalibe yëpp ak bépp tarixa ñu xam ne ñu ñoo bokk ndey ak baay waaw li lislaam gi benn la ay branchement moo si nekk mais lislaam gi lépp lépp benn la leen loo xam ne rek maanaam da ko war a ñaawal ñu koy ñu koy def. lan ngay wax xalif bees bi. waaw di ko ñaar rek comme ni ñaanlee suñu xalifa bi almuntaxa Mbàkke mu gën fee yàgg gën a wér maanaam gën mu di gën a mën a taxaw Mbàkke borom taxawaay am na njëriñ trop si yoonu bi maanaam di ko gën di ñaanal fa laa njëkkee di ko ñaanal bu baax a baax a baax mu gën fee yàgg gën a wér gën a yàgg gën a wér xalifa bi nag maa ngi koy ñaanal tamit maanaam mu gën a yàgg gën a wér tamit waaw gën a mën a taxaw njabootam bi si barke maam borom Touba. la may doon euh, kaddu gu mujj bi. waaw te xanaa rek di santaat rek sant bu baax a baax a baax xam nga ñun moom ñun dañuy sant ñun fu mu toll dañuy sant waaw di sant maa maam borom Touba bu baax a baax. di sant tamit bu baax a baax sama wasila suñu Xaadim Mbay maa ngi koy sant bu baax maa ngi koy sant bu baax a baax a baax tamit waaw ñu santaat bu wér. mën nga ñëw yëkkatil tuuti rek. waaw ah, loolu moom xanaa ku nekk daaj bi ñu dem.